jël micro yéen a nga fa woon ak beaucoup d' autres confrères daal di ne Macky Sall dëgg gàntal nga ko mais Jamra d' accordul sur la formulation parce que da nga vous vous une porte entrouverte boo xam ne lobby homosexuel yi dañuy continuer di dundee yaakaar ndax da ko ne on n' est pas encore prêt. loolu ça peut sous-entendre xëy na jamono dana ñëw yëf yi évoluer on sera prêt c' est beneen naataango journaliste posé ñu question.